ñu ngi am bu baax di ñëw jàkkaarloo waat ak yéen seen jàngale yi nga xam ne moom la ñuy amal ajuma bu jot ci waxtu seen émission bu tedd bi nga xam ne mooy Ar-Rachd ki koy présenté seen mbokk Oustaz Mouhamadou Amine Mbengue ñuy nuyu kilifa diine kilifa aada yi nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy xalifa hinaloo yëpp ñu leen nuyu bu baax macha allah di leen wàccee seen wàccuwaay di jaare ci loolu di nuyu ki nga xam ne mooy xalifa général des mourides ci bu am solo bi nga xam ne defoon na ko fële tey fi nga xam ne moom mooy euh, màggalu poroxaan ci tëju jumaa ba nga xam ne moom lañ fa doon def incha allahu ñaanal ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yàlla saafara leen ñii na ci biir prison yann yàlla génn leen ñi nga xam ne ñoo jiitu ñëpp yal na yàlla jéggal leen bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm ñi nga xam ne ñooy suivre ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo fi jaar di gërëm ki nga xam ne moom la ñu daloon ajjuma bi weesu muy imam Adama Traoré ñu doon waxtaani tomb bu am solo te ñu ñëwaat beneen ajjuma yem ak benn fanu li nga xam ne moom mooy muharram ci ñenn ñi ñeneen jàpp ñaareelu fan tey lu ci mante am yàlla na yàlla nangul ñu te nangul mboolem jullit ñu ci gan koo xam ne dootuñ ko présenté ci réew mi koo xam ne yëg nañu wala gis nañu ay taxawaayam ci saa bu génnee wax li nga xam ne moom mooy xewtu jamono dañ koy bàyyi incha allahu moom mu nuyoo bu ñu paree dikk ci li nga xam ne moom mooy waxtaanu incha allahu salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu mbooleem kilifa diine boo xam ne jamono bi yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Africa 7 mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi alxalifatul amma sëriñ Babacar Sy Mansour mm-hmm. ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla guddal fanam nuyu sëriñ Muntaxa Bachir ñaanal mboolem kilifa yi yàlla yàlla dëgëral leen. wàcc ci télé bi nuyu suñu soppe. Mm-hmm. suñu directeur suñu lépp muy alxaaj Alioune Ndiaye. Mm-hmm. ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla yokk dëgëral. muy jàmbaar yàgg sonn ci lu mel nii. Mm-hmm. ñun ñi ñëpp tabaarakallaahu ci loxoom la ñu jaar. liggéey ak moom at yu baree baree baree bari. boobu léegi nag muy rafet fa tabaarakallaahu sàkk woon ci ñun ñu ñëw. ànd ak yéen émission bi oustaz ñu nuyu la yow itam ziar la mm-hmm. ñaanal la taxawaay bi ngay def ci diine jeeg lislaam bi yàlla na ko yàlla yokk dëgëral bëgg nanu kontaan nanu ñu déglu la incha allah ci waxtaan wi jërëjëf euh, oustaz ñu ngi lay ziyaaru ba oustaz euh, Modou Fall mm-hmm. ñu lay béggee bu baax a baax di wax ne moom mooy borom réseaux sociaux yi <laughs> ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne moom moom la fay def oustaz tey yu ñëw ak beneen tomb bu jàngale mm-hmm. tuddee ko lu ñëw tuddee la dégradation des mœurs bu ñu waxee loolu mooy dañu def taxaw seetlu ci ne gis nañu jamono yàqu na yàqu goo xam ne. Mhm. bu ñu demul duut baaraam ca fa jafe-jafe yi am yaakaar naa solution du gaaw am. Mhm. te loolu nag bu ñu ci teetoloo benn aaya ci alquran ci li yàlla wax ne gis nañu ne yàqu-yàqu am na ci kaw suuf. Mhm. maanaam ci jé géej gi ak jéeri ji. ñu ne ko lu ko waral mu ne bi maa kasabat ay dinaas. loolu nag mooy suñu laytaayu waxtaan. waaye laata loolu. Euh, yàlla dafa dogal itam ñu jeexal at. Mhm. en tant que ay jullit dugg ci beneen at. mu jaadu ñu def li nga xam ne moom mooy euh, muhaasab mooy ñu nattaat suñu bopp ci at mi nga xam ne moom la ñu génn en tant que ay jullit. Mhm. def ci ay mawaqif yoo xam ne war nañ ci taxaw bu baax a baax jim ci waxtaan. Mhm. Euh, boo ñu doon tënkal tey li nga xam ne moo jot weesu ci at mi weesu lan nga ñuy tënkal ci loolu d'abord. jërëjëf euh, al oustaz li ma ciy tënk mhm. mooy nit mhm. waxuma la boo génnagul at mhm. mais li ñu naan anniversaire bis bi nga juddu woon bis bu dellusee la nga war a def mooy xalaat lan nga def ci at mi moo tax am na mag ñoo xam ne ñoom anniversaire duñ ko firee anniversaire mooy mais ñu ngi koy firee ana loo yàlla bis ba nga juddu woon. Mm-hmm. date bi dafa dellusi mm-hmm. ñu ne ana anniversaire la tudd mais tuddul anniversaire mi ngi tudd anniversaire yàlla. Mm-hmm. ku ci nekk ci ñun war ngaa xalaat at mi nga génn. ñaata bàkkaar nga ci def. at mi nga génn ñaata diggante nga ci yàq. at mi nga génn ñaata sëy nga wax ba mu tas at mi nga génn ñaata waxtu nga ci faat. nga xalaat yàlla. bàyyi xel ni. heure boo xëyee songu bis jàppal ni li nga waroon a dund mi ngi wàññeeku. Hmm. boo waree dund dix jours. Hmm. boo yeewoo neuf a ci des nga yeewuwaat huit a ci des. Hmm. kon nit bu génnee at war naa xam ni gën naa jege bàmmeelam. kon na toog ci fan ruq mën a kan. benn góor gu baax daf daan wax ni. nit ku ne war ngaa toog ci sa ruq mën a kan. xalaat yàlla. wiit xalaat xisaab sa bopp. waaw man yàlla bi ma fiy indi day daf ma fiy indi woon pour ma jaamu ko. yàlla day moo farataal ci man julli waxtuy juróom est-ce que maa ngi julli ndax oustaz bari na ñoo xam ne ci réew mi mm-hmm. du nu julli mm-hmm. am na ñoo xam ni tuddee nañu seen bopp jullit te du nu julli mm-hmm. am na ñoo xam ni foo leen gisee ñuy julli rek tàggee nañ leen nit waaye ci seen coobare bakkan du nu jaamu yàlla kon jullit bu nekk war ngaa bàyyi xel ni at mi nga génn tooñ yi nga ci tooñ yàlla nga jéggalu ko fi nga defoon erreur nga moytu faa juumaat ndax dañuy wax ni boo dee dox ba xal lakk la mhm. boo tëbee balaa ngaa tegaat sa tànk di nga xam fi nga koy teg mhm. yàlla nag li mu ñu won ci ay preuve ci at mii ñu génn dafa mhm. bari xam nga coronavirus bii nga xam ni kenn amul garabam médecin yi trouvé gun li koy faj ñu ne kon du feebar ndax danuy wax ni feebar bu nekk am na lu koy faj lu tax coronavirus ñu ne feebar la te amul lu koy faj moo lay wan ni balaa la oustaz xam nga ni balaa buy wàcc ci réew la tax yàlla di ko wàccee mooy bàkkaar yu bari xam nga ni réew mi bari na bàkkaar mhm. samedi ak dimanche bu daan jot avant coronavirus di fi ñëw xam nga ni ngor gii mhm. circulation dana fi am dëgg mhm. boo demee grand théâtre circulation dana fa am boo duggee almadi gii wër rond bi samedi ak dimanche doo am foo teg sa tànk ñépp ngi ci caaxaan yàlla dem ba yëg ni jaamam ñi tegatul ko palaasam <laughs> mu ne xaaral ma woon leen sama bopp. oustaz nga baal ma mais man day defar des fois damay am jafe damay am problème. Mhm. ndax li nga wax noonu bu fekkente ne jamono bu ñu tuddee feebar bi maanaam kenn ku nekk dangay ngay jiima lay génn sa bopp. Mhm. te dafa am lu alquran wax ne wa maa ubarri'u nafsi. inna nafsa la ammaratun inna bi suu. Mhm. léegi lan moo waral toujours bu fekkente ne problème dafa am. Mhm. masalan li nga xam ne moom la ñuy dund nii muy feebar. Mhm. bu ñu waxee ni ci ëpp bu ñuy wax. Mhm. dañuy joxe ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ñoom ñooy caaxaankat yi. lu tax ñi nga xam ne ñoom ñooy kenn jàppul ne peut-être bu mën nga def. erreur boo xam ne bu mu monumental la. bu ñu ci dëggee jàpp ne loolu wala boog nga natt sa bopp ne est-ce que man du man maa def lu tax yàlla wàccee feebar bi la. waa xam nga bàkkaar. ki koy def di ko nëbb. ak ki koy def di ko fësal bokkuñu. ndax am na koo xam ne tey bàkkaar bi mu def moom la ak yàlla kooka amaana bu wéetee jéggalu yàlla yàlla jéggal ko te xam nga réew mi caaxaan dañu ko yaatal tey autorisé nañ ki taxaw ci mbedd mi di jaay boppam boo ko fekkee mu taxaw nga ne ko dama lay ramas kartam am la lay génneel damaa am carte am naa autorisation pour def lu bon kon kooku mbonom googu daf koo fësal tey li tax fësal lu bon bon mooy am na koo xam ne bu génnee def naka sudul noonu jàppal ni téeméer danañ ko ci roy xam nga am na benn waykat boo xam ne mas na fee génn yor saak am ñu xëy jëndi saak di ko ci toppandoo mais jurul jàmm kon am na ñoo xam ni publicité mbon ci ñoom danger bi muy am ak danger bi bi bi ci nekk bokkul ak ki wéet def bàkkaar dontele la alaaji Abdou Aziz baax daan wax amul kenn koo xam ne jàpp nga ne yàlla nangul na la li ngay def ndax ku ci nekk rek war ngaa xam ni ni ngay defee bàkkaar noonu la ko sa moroom di defee mhm. boo gisee ñu naan bu mbooloo dajee nañu ñaan ndax xamuñu ban allahumma la yàlla di nangu mhm. ñun ñëpp kenn xamul ban bàkkaar nga def mhm. bu tax yàlla wàccee corona bi waaye mbon gi ni nu ko fësalee ci réew mi la alaaji Abdu waxoon ñu fiy teg film bu bon mu ne nañu tëj baar yi néewul ñiy def bàkkaar ci suuf te kenn xamu ko nan ko bàyyi daf ni palaasu def defukaayu bàkkaar yu fës yi nanu ko tëj bu nu ko tëjee nanu woor bu nu wooree nanu saraxe bu nu saraxee julli bu nu jullee tàllal sunu loxo yàlla ñaan yàlla yàlla jële ko fi ak lu mën a xew balaa moom buy wàcc ci réew ay bàkkaar a tax mu wàcc fa léegi foofu gis nañ ne alquran dafa am nu mu waxee mhm. masalan alquran dafa wax ne qaalatil arabu amanna qul lam tuminu walakin quulu aslamna léegi bu fekkente ne yooyu yëpp dafa am ñu gis ne mbon gi bëri na ñaawteef gi bëri na dégradation bi yaatu na ba kenn ku nekk tey boo nattee yi nga xam ne moom nga tudd loolu yëpp ay jafe-jafe la léegi bu fekkente ne dañu bëgg fexe ba loolu jot fi maanaam bu ñu waree natta suñu bopp yan arkaan la ñuy natte suñu bopp pour pour jéem fee jéem maanaam yi nga xam ne mooy at mi weesu buñ ko doon natt suñuy jëf. Mm-hmm. ci yan mawaaxif lañ koy teg wala boog ci yan arkaan lañ koy teg maanaam yeni ponk. Mm-hmm. lañ koy teg pour mën a natt ne suñuy jëf kat def nañu daaw ren fi la ñu xam nga oustaz. Mm-hmm. nit ku nekk boo wéetee xam nga yaay kan. ñun bu nu xoolee at mii nu génn. façon ñaawteef yi xew ci réew mi. lu ne yaa ngi koy dégg. Mhm. parce que léegi oustaz internet a tax. Mhm. lu xew balaa guddi nga yëg mhm. violation yi ngay dégg ci réew mi. oustaz internet bi. Instagram la fay xew. te léegi publicité mbon moo gën a yóbbu publicité mbaax. ndax lu baax boo ko fee def boo ko fi dee def. fi mu ne émission bii am na ñoo xam ne bu buñ ci yemee dañuy zappe. dañ naan télé neexul tey parce que foo jàpp ay waaraatee fa nekk. léegi nag télé neex mooy fësal mbon. Mhm. man bu ma nattee at miinu génn ak fii nu toll. Mhm. damay damay li ma gëm mooy gaa ay jàmbaar la ñu. Mhm. parce que nag ñi ci ker gi ñoo fi bàyyi ñi ci naaj wi. xam nga jàkk yii di wasifa barabu jàngkaayu alquran yi. daara yiy jàng alquran ñooñu tey ñooñu ñooñu ñooñu ñooy sunu sauvetage. moo tax bu nu bëggee yàlla tukkal àddunaam bi nañ fi jéem a jëlee daara wala ñu crash daara wala ñu xañ ñooñu daara li nu am ci réew mi. parce que alquran mooy dëgg. jàng gi ñuy jàng alquran ci réew mi mag ñi di fi jàng alquran téere mag ñi ñu ko fiy jàng di fi lal malaanu wadifa di fi xadara la ilaha illallah di fi jib looloo fi bàyyi réew mi li nag looloo ngi am oustaz xel mën naa dal li feeg ñi ngi xëy xale yi di jàng alquran ngay romb taalibe mu muy jàng alquran mhm. nga toog ci koñ bi dégg jàkka ji di wazifa mhm. ndax Seydil Hadj Malick moo waxoon ni inna al wazifata mhm. lil ghurra'i aasimatun kadaka iqlimuha fi kulli buldaanin Seydil Hadj Malick nee na wazifa dana aar ba aaraale ña dëkk ca raison ba kon li yaa ngi xëy allah allah di jëb naasiril xaq bil xaq di jëb alquranul karim ji ñu di ko jàng di ko seetantal xel mën naa dal jërëjëf oustaz maanaam daal su ma la déggee bu baax mooy yi nga xam ne mooy misaan yi ñu war a nattee suñu bopp mooy alquran alquran nga xam ni lépp lu ñu war a doxale ci àdduna bu ñu fa demee daañ ko fa fekk mais yonent bi daf ko waxoon oustaz wa sallam mhm. taraktu fikum ni mhm. ma in bi bihi lan tadillu abadan mhm. kitaaballahi wa sunnati sallallahu alayhi wa sallam sayduna muhammad bi muy génn àdduna daf ni maa ngi dem mais maa ngi fi bàyyi ñaar yoo xam ni su ngeen ci jàppee du ngeen sànku ba ilaa yawmi diin mm-hmm. ñu ne ko ban ak ban mu ne téere yàlla bii di alquranul karim mm-hmm. ak sama sunna man sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz nañu dellu ci alquran mm-hmm. boo ca delluwul ci lañ lay delloo mais nanu delluwaat ci alquran alxuraan dong mooy sauvetage bi parce que ci la yàlla def lépp maa farrat naa fil kitaabi min shay'in mhm. alxuraan bàyyiwul dara mhm. suñu bëggee suñu mbir baax fii baax fële mhm. il faut ñu delluwaat ci alxuraan moo mën a defar jamono de alxuraan a mën a orienté waat alxuraan moo nu mën a tegaat ci yoon miisaan bi alquran la Seydi Hadji Malick daf koo bindoon inna alqurana huwa almiisaanu taarifu minhu ma xawayta min al ashwaaqi wa sadami nee na bu nu dekkee ëllëg yowmal qiyaam nit ku nekk mhm. na nga fonkee woon alquran ak yëg-yëg bi nga amoon ci alquran mhm. ci la ñuy xamee li nga làq ci tedd nga ak teraanga mhm. ndax yonent bi nee na balaa ñoo yëg balaa ñoo dugg aljanna dañu la naan oustaz fi sa niveau toll ci alquran ni nga fonkee woon alquran foofooy sa dëkkuwaay ca kaw iqra wartaqi wa rattil kama kunta turattilu fi dunia fa inna manzilataka teen aqiri ayatin taqra'uha te réew mi bu nu fi dee jàng alquran ñiy jàng alquran du nu leen du nu leen yaatal. Mm-hmm. am na ñoo xam ne bu nu toogee ci télévision yi benn yitte rek la nu am. Mm-hmm. mooy daara yi na nu tëj daara yi daara moderne mais daara moderne amul. Mm-hmm. daara bu nu demee bay connecté wu nekkatul daara. daara juy seetaan télé nekkatul daara lan mooy daara moderne. daara kay jàng alquran démb ak bërki démb nanu ko daan defee mhm. di ko settantal parce que nag alxuraan oustaz kenn mënu koo jàng te sonnoo mhm. kon bu nu bëggee sunu àdduna baax mhm. delluwaay bi benn benn benn yoon la apayage bii boo ko jëlee jëm cees boo ko wàccul danga àgg cees delluwaay bi nu am ñun ñëpp te bu nu ci tegoo àgg mooy alquranu karim jërëjëf maanaam daal alquran wal xàll jeex na aywa léegi gis nañu ne aussi ci li nga xam ne moom mooy la dégradation des mœurs. Mm-hmm. yàqu gi nga xamante ne jikko yi dafa dafa yàqu. dama jàpp ne buñ koy wax foofu ñu joxoñ parents yi. Mm-hmm. ndax mbir mënoo ñëw rek commencé ji wax te demuloo ba xool fa li nga xam ne moom mooy source bi ñu gis ne parent yi ci bëri li ma li ma laajoon euh, ministre Bamba Ndiaye wala oustaz Bamba Ndiaye yal na yàlla yërëm ko. amiin ne ko dama xamul ndax transmission bi moo baaxul wala déet te su ma waxee transmission bi mooy. bi nga xam ne jële nañu yar ci mag ñi ndax mag ñi yar bi ñu yoroon dañ ko joxul ñi nga xam ne ñoom ñoo leen wuutu wala ñi leen wuutu ñoom ñoo jëlul xam-xam wala wala yar wala ñoom ñoo joxawul yar mm-hmm. te léegi da ngay gis ne parents yu bëri dafa am benn phénomène bu ñuy wax mooy parent yi dañ démissionné ñoo démissionné ñoo démissionné si yaru xale yi <laughs> mm-hmm. ndax bu fekkente ne yow da ngay yar xale yow tiwis xamuloo fu sa doom nekk wala gannaaw gee xamuloo fu sa doom nekk loolu musiba la mhm. beneen bi mooy gis nga ne léeg-léeg am na parents yoo xam ne euh, seenu bi yar pareegul daanaka ñoom ñu ñoom ñu commencé ne dañuy yare est-ce que loolu jàppaloo ne maanaam yaru ba noppi bëgg yar <laughs> ah. est-ce que loolu sababu li nga xam ne moom mooy dégradation bi xam nga oustaz li nga wax dëgg la mhm. parce que ki war a yare mhm. su yaruwul ka muy yar du yaru parce que xale bu ndaw bi nga xam ni yaa ko jur. Mhm. nga woo ko ba mu ñëw ni ko képp ku fi ñëw di ma seet nee ko sam papa nekku fi. Mhm. ba pare delloo sa buntu tëdd nelaw yaa ngi jàngal xale bi fen mhm. du noonu. sa doom. ngeen toogandoo di seetaan télé. télé bi teg musique. muy fecc nga koy tàccu. yaa ngi koy jàngal fecc. sa doom. yor xaalis yaayam di ko dóor. nga ni ko nee ko maa ko ko may yaa ngi koy mm-hmm. jàngal fen mm-hmm. kon dafa bari jikko yoo xam ni mm-hmm. parents yi ci boppam nanu waroon a mel ñoo ko melul parce que bu fekkente ni bii mel nga ni nga war a mel sa doom yaa ko war a orienté yaa ko war a teg ci yoon parce que dafa am xaq yoo xam ne dafa war sa diggante ak sa doom sayduna muhammad mi ngi doon wax ne inna min xaqil walidi ala waladihi an yuallimahu alkitaaba moo ca jiitu mais oustaz léegi doom yi jàngatuñu alquran parce que parent yi jëlatuñ seen responsabilité ci seen doom. Hmm. loolu moom yéeme na de jur doom ba pare doo jël sa sa am na ñoo xam ne seen doom yi xamuñu fu nuy fanaan. Hmm. ci réew mi. ci réew mi am na xale yu jigéen yoo xam ni minu yi lañuy génn seen kër tàggu seen yaay sa yaay naan la bul guddee minuit. minuit kay bul fanaan lañ la war a wax. Hmm. wala bul naaje sax. ah minuit kay xanaa. <laughs> <laughs> minu kay bul naaje la. am na ñoo xam ni bu nu xëyee. Mhm. seen waa kër xamuñu ci lu ñuy dox. Mhm. min wi la ñuy sangu ba set sol seen lu bon tàggu seen papa génn tàggu seen yaay génn. Mhm. bu seen papa naree wax ñu ne ko noppil parce que dafa am xale yu jigéen yoo xam ni la seen waa kër yi di dundee ñoom ñoo koy ñàkk ñoo koy indi liggéeyuñu ko nag. mais ñooy farantu indi ko ci biir kër gi parents yi di ci dund. te kiy lijjanti ji di la jox ngay dund. pour nga wax ko dëgg tey jafe. parce que boo ko waxee dëgg mu gis boppam. te mm. su boobaa dootu indi xaalis ci kër gi. Mm. ñàkk bi parents yi ñàkk doole moo tax ñu ci bari démissionné. ani ngor. ok ngor googu moo jeex ci ñoom. Mm. amatuñu ko. Mm-hmm. am na ñoo xam ni la leen yàlla dénkoon muy responsabilité seen diggante ak seen doom yi amatuñu ko. Mm-hmm. bu nu xëyee ñi ngi xool lu leen neex. Mm-hmm. oustaz ana sàggante weesuwul am sa doom. nga dëkk ak moom ci kër. mu dem ba dëgër ni la génn naa léegi yof laa dëkk fa laa jël appartement mbaa almadi mhm. amul xëy amul gont fan lay fayee lu yaas mhm. jëlatuñu responsabilité ci ñoom mhm. topp nu sunu bakkan bii ak alal jin ñuy jox parce que bu njëkk da nga daan def dara doo nelaw ñun jamonoy xale am na yoo xam ni boo ko daan def boo ba maanaam doo nelaw boo sanguwul sax bu sa papa ñoo ñu ne ko diw sanguwul doog a tëdd ci guddi gi nga yeewu sangu. Mhm. boo daan séen sa papa ci mbedd dangay daw. Mhm. am na ñoo xam ne dem nañu ba nekk mag yor seeni soxna teewul dañoo ragal seen papa. Mhm. ñemewuñu ko boo waxee ñu ne góor gi dafa tàng. mooy parents yi nga xam ne ñoom dañoo amoon responsabilité ci doom dangay dem ba tollu moment boo xam ne da jàpp ni sa papa daf laa bañ. ndax coono yim lay teg teg la fitna. yaa nga ca daara ja mu ne sëriñ bi dénk naa la yàpp yàppam ak yaramam ak lépp bu mokkalul alxuraan du génn daara ji mhm. ngay toog yow nekk xale naan man sa papa daf maa bañ sama papa bëgguma mhm. fekk li mu la bëggal mooy nga dem ba xàmmee ba bu jamono sànkoo duñ la boole ci xale yi sànku mhm. kon responsabilité bi yépp ci parents yi la oustaz am na kër yoo xam ne tey boo fa demee lanu doon doon ca seeni maam ba léegi moo fay dox jàng alxuraan muuru sellal liggéey jaamu yàlla. Mm-hmm. am na ñoo xam ne nag ndono yenu doon woon seen maam. Mm-hmm. puso bi ci see ci ñoom la mujj. Mm-hmm. mais dañ koo réeral. kon responsabilité yépp li ma bëgg li ma d'accord man. mooy parents yi ñoo deful seen devoir moo tax xale yi mel ni nu mel. léegi bu fekkente ne parent yi ñoom defuñu seen devoir. xale yi dem ba yàqu dikkal leen ñu dem ba mu yàgg ñoom itam. xëñ na majeur dab na leen est-ce que jarul wala boog warul su ñoom ñu jëlaat seen ay responsabilité pour jéem a dindi mor gi nga xam ne moom moo fi nekk mais pas bañ ko continuer. ku ci yàlla dimbali day. Mhm. mën ngaa teel a wëlbatiku. Mhm. waaye nag day co day fekk mu nekk ci coobare sunu borom. Mhm. parce que oustaz yaa jàng ci alquran iblis ne woon yàlla. dangaa am mission. ma am mission. yow yàlla sa mission mooy nit ñi jaamu la topp la mhm. man itam am naa mission mhm. yàlla ni iblis luy sa mission mhm. iblis ni ko mooy la ughwiyannahum ajmain danaa fexe ba ñu ëpp ci sama groupe la ñuy bokk léegi yéen lan mooy nekk seen responsabilité ci loolu ah, ok maa ngi ñëw ci bismillah la ughwiyannahum ajmain danaa fexe ba ñu baree bari au lieu que ñu bokk sa groupe mais sama groupe la muy bind yàlla ni ko nag ku sàggan ba bokk ci sa groupe yow ak yow yow mi ko fa inscrire ak moom mi inscrit wu mhm. ñoom ñëpp la am la anna na min ka wa min man tabiaka mhm. yow iblis ak képp ku inscrit wu ci sa group mhm. danaa leen dugal safara mu ne yàlla fi ma leen di jaar ku ma bëgg am am ko yàlla ni ko foo leen di jaar mu ne ko summa la aatiyannahum mhm. min bayni aydihim mhm. wa min xalfihim wa an aymaanihim mhm. wa an chamailihim li nga gën a bëgg lañ la dul defal mooy wala tajidu aksarahum shakirin mooy da nga leen di defal teraanga ñu bàyyi la fi sant keneen nit day añ ba suur këll yaa ko jox ceeb bi put gi muy wanaasoo yàq ko defaral làmmiñ bi yow la bëñ yi koy yëy yow la mais dala fiy bàyyi yow yàlla ni jërëjëf oustaz Modou Fall ci sama liggéey la bokk man Iblis léegi nag xale yooyu ña cay am sens. Mhm. yàlla leen di orienteel boppam wëlbati leen. Mhm. ndax nit tegu na ci yoon ba ñëpp jàpp ne sànku na yàlla wëlbati ko. Mhm. parce que nag moom mooy teg ci raay bi ku ko neex. mais mooy déviation mooy déviyeloo ku ko neex. parce que laa la tahdi man ahbabta la waxoon sayduna muhammad walakin allaha yahdi man yashaa ku ci yàlla nara dimbali da nga wàcc raay bi joxaat ko sa bopp Oustaz dama lay dégg nga wax ne ñi nga xam ne teguñu ci yoon dañoo ñàkk sens. Mhm. te euh, dafa am lu yàlla wax. Mhm. maanaam booy mooy li mu wax ne yahdi man yasha wa yudillu man yasha mhm. <laughs> loolu na lañ koy dégg. moom laa la wax ne la yàlla. daf ni woon Seydina Muhammad du yow yaay jubal. man yàlla maay jubal ku ma neex. dëngal ku ma neex. moo tax bu boobaa kon dinañ jàpp yàlla ak màndu ci moom. ah kay parce que bu dëngalee ku ko neex jubal ku ko neex. xam nga bu boobaa doomu aadama bi yàlla balaa ñëw chaque jour day xool ndax sabab lu nga mhm. dafay xool mhm. ndax sabab lu nga xam nga oustaz tey bu nu toogee maag yow mhm. cinq heures jot ñu nodd ko nga jug lal sa sijaada julli man ma toog fi ma toog julliw ma ëllëg bu nu demee ci yàlla maag yow yow yàlla waxagu la nangu naa sa julli wala nangoogu ko mais man moom julliw ma kan mooy xaw a am yaakaar tuuti. mais usa bu fekkente ne man damay julli. Ah. man damay julli te sama xol yéenuma ci nit lu baax. Mhm. bu fekkee damay damay damay saraxe sama xol yéenuma ci nit lu baax yow doo julli doo saraxe mais sa xol yéenuma ci nit lu bon. est-ce que boobaa aussi sa sa julli gi la yàlla nanguwul xam nga yow jàng nga inna salaat tanha anil fahshaay wal munkar <laughs> wal munkar yàlla nee na julli daf lay teree def lu bon benn góor moo ma ko firiloon ne ma danga naan julli gu yàlla nangu. Mhm. daf lay teree def lu bon. Mhm. ndax am na koo xam ni mi ngi ci jàkk ji bu sëlmalee day jëw. waaw. asalaamaaleykum rek automatiquement Oustaz Mbengue. Mhm. Oustaz Modou Fall mii naa nga nekk ci deram. am na koo xam ne bu toogee ci si jaada gi julli jumaa di xaar imaam ñëw avant nit ñee ñëw mi ngi ci deru jàmbur. am na koo xam ne bu génnee ci jàkk ji ngoon am na hervé day njaaloo ji. am na koo xam ni mi ngi jàng alquran mais li alquran digle defu ko mhm. mooy li yonente bi naan rubba mhm. xaari ul quran wal quranu yalanuhu mhm. bari na ko jàng alquran alquran wëlbati ko di ko rëbb mooy oustaz mbir mi la yàlla sant def ko defal li nga war a def waaye nag bàyyil xel ni fii moom beneen affaire la léegi oustaz euh, ba tey ma ñëwaat ci même question boobu ah. xam nga maanaam mais da ngaa laaj nag sànq laaj bu am solo mooy lan mooy devoiru uh-huh. borom xam-xam yi ci bu mbon ngi tollee fii bu tolloo foofu dinañ si ñëw waaw léegi maanaam bu fekkente ne tey uh, maa ngi ci yahdi ma yosha wa yudillu ma yosha ba tey foofu laa ne mm-hmm. uh, bu fekkente ne yàlla dafay jubal ku ko neex dëngal ku ko neex comme ni nga ko waxee mm-hmm. léegi ñu gis ne bu fekkente ne wayjur wi ñaari jur yëpp baaxuñ doom bu juddoo ñu xalaat ci moom ak mbon est ce que bu boobaa tam du nekk ca la ma waxoon ne bu boobaa yahdi man yasha wa yudillu man yasha maanaam ñaari jur yu baax ñaari way wayjur yu bon yu bon waaw waaw doom juddu fa bon ndax loolu ci ci ñàkk chance am la bokk wala ci soo coobare yàlla mais loolu ci coobare yi sunu borom la ah. parce que bul fàtte ni mm-hmm. soxna Firawna mm-hmm. yaakaar naa su ma juumul Asiya la tudd Asiya mm-hmm. wax nanu ni bokk na ci ñi war a doon ëllëg soxna yonent soxna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te pourtant na ku ne xam na ni baaxul moom dafa jëloon responsabilité bi waaw mais yàlla exemple bi muy joxe foofu xam nga lan la mm-hmm. mooy mbir mën naa bon mm-hmm. yàlla génnee ca lu baax mm-hmm. wax nanu ni yonent yàlla Ibrahima baayam Azara bokkoon na ci ñi daan jaay xërëm te xërëm xam nga ni yàlla bëgg ko dëgg la wa is qaala ibrahima li abihi adara atattaxidu asnaaman aliha inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin mhm. yàlla dafa bari lu muy insisté ci xërëm mhm. parce que shirk la mhm. te ashirku huwa an tajala lillahi niddan wa huwa xalaxaka mooy wutal yàlla moroom yàlla léeg-léeg oustaz dana fekk lu baax mu génnee ca lu safaanu ci kàttanam la ni muy fekkee lu dund luy dund mu génnee ca lu dee fekk lu dee mu génnee ci luy dund mhm. jigéen ji jigéen ji ëmb dem hôpital mhm. doom ji judd indaale bakkan moom mu faatu mhm. xale bi juddu yenn saa yi ñu ne daa faatu yaay ja dund ni ko yàlla di defee ci anam boobu noonu la yàlla di defee léeg-léeg fii ci àdduna rek am na misaal yenn saa yi nga dégg ñu ne imam diw wala sëriñ diw nga ni waaw ñu ne la pourtant quin di guinze mooy mooy doomam de yow automatiquement da ngay dar sa gémmiñ da nga naan déet mais oustaz Mbeng mi ne Africa set di waaraate mhm. ñun waaw ñu ne kii doomam la ñu ne ah doomam la de mhm. mais lii nan la mën a nekkee yàlla ni ahankay mhm. lu baax lu bon mën na caa génn ci maandu te suñu borom la bokk mais bàyyil xel ni ki tegu ci yoonu njub bu mu naagu oustaz bul tegu ci njub mukk ba naagu jërëjëf bul tegu ci njub mukk ba naagu ndax mën na la yaaxal ndax wolof nee ne ku naagu daagu daagu te ku daagu ñu romb la ñu romb la <laughs> jërëjëf léegi ma del sawaat ba tey ci question boobu mhm. euh, ci lan mooy loru yéen ñi nga xam ne yàlla daf leen dénk ngeen wala daf leen nattoo ñun ñun waaye waaye ñun waaw <laughs> parce que comme comme comme man askan bi laa fi nekkal. dëgg la dama jàpp su ñoom laa bokk. pour la léegi lan mooy doon seen rôle yéen bu fekkente ne gis nañ ne mbonteef gi bëri na yi nga lim yëpp ci xeetu mbon-mbon boobaa lan moo nekk rôle ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ñoom ëllëg ñoom ñooy donn yonent yi sal euh, alayhim salaatu wasalaam lan mooy nekk seen rôle yéen. oustaz rôle borom xam-xam ci société. Mm-hmm. mooy rôle ba Seydina Muhammad yoroon sallallahu alayhi wa sallam ndax dañu ni al ulamaa mhm. warasatul anbiyaa yi mais gars yi nag nee nañ loolu di ngeen koy war a may jëfee leen ko de waaw maa ngi ñëw mhm. al ulamaa mhm. warasatul anbiyaa yi boroom ñoo fi wuutu yonent yi ñoo fi wuutu yonent yi ci nan xam nga boo demee ci lax laxdar yi daf lay wax ni du boroom xam-xam yépp ay jëfe seen xam-xam moo tax laxdar yi ne la mhm. bu fekkee dangaa ngaa am masala ci wàllu sharia mhm. te laaj rek tax laa jóg mhm. wa yes alal dama laaji boroom xam-xam mais bu fekkee da ngaa bëgg a roy roy topp ci ginnaaw kuy def lu baax rek pour nga roy ko nee na su boobaa jéggi fi boroom xam-xam wa yaqtadiru bil mutatabbiina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que yàlla xam na ni am na boroom xam-xam yoo xam ni mhm. li nuy wax duñu ko jëfe mhm. moo tax yàlla ni booy laaj laajal kooku mhm. comme moom xam na rek laaj ko oustaz Modou Fall day naan sàngara day njaaloo day mooy yàlla day def bàkkaar yu bari yàlla nee na te masala sharia bi nga bëgg a xam moom xam na ko laaj ko ko mu tontu la léegi nag booy roy royal ñi nga xam ni alladina yadulluuna ala taatillahi wa yuxadiruuna man itibaa sheytaan booy roy wala ngay topp toppal ci ginnaaw ki nga xam ni moom yàlla la topp mi ngi jëfandikoo xam-xamam mm-hmm. kon nekkul ni boroom xam-xam yépp la ñuy topp mm-hmm. booy laaj laajal ki xam mm-hmm. booy topp toppal ki jubal waaye nanu xam ni rulu boroom xam-xam ci société mooy la sayduna muhammad defoon ndax yonent bi daf ne woon innama bu'istu li ma makaarimal axlaaq jikko yu yàqu yi oustaz nga waar ci nit ñi wax leen li yàlla wax te jamono bi nga koy def bu ca wut looy ragal. Mhm. parce que waaraate ñaar a koy def. Mhm. bul ragal bul bëgg yit li ne ci poosu nit ñi. Mhm. ñaar. mooy arme kuy waaraate. bul ragal ci aaya yàlla yi firee ko ni ko yàlla waxee. bul tiit bul ragal bul soppi aaya yi pour bëgg lu neex oustaz Mbeng parce que boo génnee dalay jox cent euro cent mille. bu ko ragal ne bu ma waxee te mu gis ci boppam mhm. li nga jàng ñu firil la ko tamul leer naññ ci sa bopp boo ko firee nit gis ca boppam amul problème mhm. parce que yàlla njëkk a wax ni kunu qawaamina bil qisti mhm. shuhadaa lillah walaw ala anfusikum yàlla ne na dëgg gi bu fekkee danga koy wax ba pare yow mi koy wax gis ci sa bopp yàlla ne na wax ko walaw ala anfusikum awil walidayni wala bu fekkee boo waxee dëgg sa papa daf ciy gis boppam yàlla nee na waxal wal aqrabina wala jegeñaale yi kenn ci ñoom boo waxee dëgg daf ciy gis boppam yàlla nee na waxal yàlla ne in yakun ganiyan mhm. su fekkente ni bii dangaa dëkk ak ku am mhm. aw faqiran wala pauvre nga yor dëgg goo xam ne soo ko waxee kii mën na cee gis boppam wala këla gis ca boppam yàlla nee na su boobaa waxal te ànd ak man ndax fallahu awla bihima mhm. yàlla moo gën a yey ci ñoom ñi ngay sóoraale kon rôle boroom xam-xam mooy bu jamono yàqoo mhm. nga taw wax ak nit nga taxaw wax ak nit ñi dëgg mhm. wax leen li yàlla wax mhm. firil leen xadiisu sayduna muhammad indil leen alquran yi nga xam ni ku ca tegtaloo du réer ndax innahu la quraanun karim fi kitaabin maknun laa yamassuhu illa almutaharuun alquran dafa ñëw inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam daf ñoo daf ñoo fekk ci yoon bëgguñoo orienté ñu gën a tegu ci njub boroom xam-xam yi nanu wax ñi yàlla dénk xam-xam nanu wax ak société bi bu nu ragal ku leen critiquer bu nu ragal ku leen wutal ay tur bu nu ko ragal mbir mi boo ca nekkee gëmal sa bopp te gëm ne yàllaa lay àggale foo àgg bu ca ragal commentaire bu ca ragal saaga bu ca ragal ku zalu bu ca ragal ku fiir yooyu yëpp bu ko calculer gëmal ne direction bi oustaz ki koy dawal kenn la mhm. mooy yàlla mhm. jox ko sa bopp te noppalu mhm. li nga war a wax daal mooy jottali dañ laa jottali loo mhm. balligu an nii wala aaya la yonent bi waxoon benn xadiis nga mokkal mhm. oustaz te mooy aayatul munaafiq salaasa isa xadasa kazaba wa isa waada wa isa tumina xaana lii nga mokkal <laughs> mais waaraate ko xam nga waaraate nekkul ci nekkul ci xam-xam balligu an nii walaw aaya tey sa doom bu góor bu nekkee seen kër te waa kër gi maîtriser wuñ xadis boobu bu leen koy jàngal mi nga leen di waar mm-hmm. wala aaya lañ wax mm-hmm. doon tele benn aaya nga mën a firi mm-hmm. wax ko ki ko xamul transmettre lañ koy wax xew ma jàllale ko mu jàll am na ku ko xamul wax ko ko mu xam ko mhm. nee leen yonent bi nee na kat naafiq baaxul mhm. te naafiq yàlla mi ngi ko programmeel ci xuuñu safara ëllëg parce que moo wax ni inna al munafiqina fi daraki al asfali min an naari walan tajida lahum nasira mhm. léegi nag naafiq pour nga bañ caa bokk yonent bi neen dafa am ay jikko am ay qualité ko ban ak ban mu ne ba sa jiitu mooy koo xam ne saa yu waxtaanee fen koo xam ne boo ko wóoloo mu war la koo xam ne soo ko joxee rendez-vous mu fausé la yonent bi ne ne yi ay jikkoy naafeq la ki ko xamul nga wax ko ko mhm. mais kenn amatul droit xam benn xadis bu ne ci sa dënn mhm. mbaa benn aaya alquran bu ne ci sa dënn nga noppi waale ko ne doo ko wax parce que dafa am loo ragal mhm. sa mission ci kaw suuf mooy li nga xam te nit ñi xamuñu ko wax leen ko doon tele da nga ci dégg saaga ndey wax ko doon tele da nga ci dégg xas wax ko doon tele nit danañu la ca mere wax ko mais mission wu boroom xam xam-xam ci kaw suuf mooy wax nit ñi dëgg jërëjëf mission wu borom xam-xam ci kaw suuf mooy mu wax nit ñi dëgg wax leen li nga xam ne moom la borom subhanahu wa taala bëgg. Mm-hmm. di leen fàttale ba tey ne yéegi seen émission à Rushdu ñuy dalal ki nga xam ne moom mooy Oustaz Modou Fall seen mbokku Oustaz Mouhamed Mbaye di leen ko présenté. Euh, ñu war a jëm ci li nga xam ne itam maanaam tollu mbokku téléspectateurs yi ñu leen di xaar ci li nga xam ne moom mooy ligne bi boo ko defee incha allah ñàkkul fileex juróomi minute. Youssou dana tijji ligne bi pour ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a jokkoo Oustaz Modou Fall. Mhm. jokkoo ak moom Oustaz ba tey ñu continuer ci waxtaan bi léegi ginnaaw ba nga xam ne xam nañu li nga xam ne moom moo sabab yàqu-yàqu gi. Mhm. wax nañu ne maanaam li wolof wax ne wañ gaa ngi bañee sa. ma njaxaan nga léegi bu fekkente ne bëgg nañu dellu sewaat pour sellal jikko yooyu nga xam ne mooy yi yàqu yan yoon la ñu war a mën a jaar pour sellalaat jikko yi. yoon wi nu mën a jaar Oustaz. Mhm. mooy tuub joxaat yàlla sunu bopp mm-hmm. xam nga yàlla mm-hmm. soo ko jaamuwul mm-hmm. dem ba màgget bëgg koo jox sa bopp du la accepte ah dem ba màgget soog ni yàlla tuub na sax ci mbon dem ba béjjaaw dikkal la nga xam ne déegaa ngi ne ngay séen mhm. nga soog a profité ne yàlla maa ngi mhm. noonu yàlla nee ma moment boobu la xelam dellu dem ci yàlla na mais yàlla moo wax ci alquran te alxuraan a gën a wóor samay wax mhm. yàlla moo wax ci alquran ni walaysati tawbatu man yàlla du nangu wala may faale tuubu ñi nga xam ne yaamaluuna sayiaati dañoo sax ci lu bon xatta ida xadara ahadahumul mawtu mm-hmm. ñu dem ba xam ni deegaa ngi ñëw nii ñu koy séen mm-hmm. xaala inni tubtul aana ñu ne ah yàlla nag léegi nag moom tuub naa xanaa ma jox la sama bopp rek ndax mag gi dikk na mm-hmm. <laughs> yàlla ne déedéet du ma la nangul sa tuub wala alladina yamuutuuna wa hum kuffaar yàlla nee na ñu koy li ma xam ci ñoom ulaika aatadna lahum adaban aliman yàlla nee na li ma leen di préparé mooy mbugal mu métti parce que yàlla oustaz li mu bëgg mooy boo koy jaamu nga jaamu ko ci bi nga nekkee ndaw mhm. jox ko sa bopp mhm. ndax dafa am yoo xam ne mi ngi ñëw mhm. waajalal sa bopp shababuka xabla hëramika waajal sa bopp bi nga nekkee ndaw balaa ngaa màgget xam ni jamono day dox bi nga nekkee ndaw ci la la yàlla soxla moo tax ñu bëgg lii tax doomu aadama bi teguwaat ci yoon ci yi fi jaar yépp yi nu fi waxtaane yépp bu nu bëggee teguwaat ci raay bi mooy nanu tuub mhm. tuub nag dafa am yoon mhm. xam nga yàlla moo nu digal tuub mhm. parce que xam na ni su bàkkaar yi baree lay tax mu mën ñëw recevoir moom yàlla mooy tuub moo tax mu ne comme tuub mooy tax ma baal leen tuubu ilallahi waaye waay yéen waa senegal tuub leen dellu ci yàlla tawbatan nag nasuhan mhm. su ngeen ko defee asa asa mhm. asa mën naa am mhm. maanaam daal wéerul waaw mais mën naa am an yukaffira ankum sayyi'atikum ma jéggal leen seen bàkkaar yàlla nee na tuub leen moom moo nu ko digal léegi nag yow defal li la yàlla sant moom bu fekkee dana la baal affaire am la su fekkee du la baal affaire am la parce que yontu yàlla Isaa loolu la waxoon yàlla mhm. yontu yàlla Isaa ba mu ba mu ba mu jàkkaarloog yàlla yàlla ni ko a anta xulta linnaasi ittaxiduuni wa ummiya ilaahayni min duunillah mhm. mu ne ko xaala subhaanaka mhm. maa xultu lahum illaa maa amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan maa dumtu fihim fa lamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim wa anta ala kulli cheyin shahid lam ca tegal yàlla mooy da ko ne yàlla in tuazibhum fa innahum ibaduka wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim yàlla soo leen mbugalee say jaam lan soo leen baalee say jaam lan moo taxit yow miy tuub defal li nga war a def su nangoo moom la su nanguwul moom la mais tuubal tuub moom yan charte lañ koy def ok ustaas yow ku neex a waxtaanal nga <laughs> wa shurutu tawbati mhm. tuub dafa am ay charte am ay condition nekkul ni rek nit dafay xëy xëy rek ne tuub naa dama daan dem soirée ba bàyyi naa jeex na non téere bi daf ni wa shurutu tawbati tuub dafa am ay charte ñu ne waaw lan mooy charte yi ñu ne première charte tuub mooy an nadamu ala ma faata da réccu mm. li nga jot a Mm-hmm. mooy dangay toog ni cey man soirée bu ne dem naa fa mm-hmm. sàngara su ne naan naa ko mm-hmm. jigéen ju ne séq naa ak moom lu yàlla bëggul waaye day réccu naa lépp su démb doon tey duma ko defaat bu jigéen taxawaatoon tey sama kanam sàkku ma du ànd ak moom buñ ma indilaatoon sàngara fii ma toog duma ma naan bu ñu ma laajoon tey danaa àtte dëgg yooyu yëpp nga natt ko ci sa xol ni réccu nga ko ba bu ñëwaatoon tey dootoo ko defaat muy benn mu ne boo ca jógee wan niyatu allaa yahuuda ila danbin fii ma baqiya min umrihi nga yéene ci sa biir xol ne bàkkaar ya nga daan def dootoo ca dellu mais sa giiru dund waaye yenn saa yi nga dégg ñu ne diw bàyyi na way nga jékki-jékki dawal deux ans cinq ans ñu gisaat ko muy way mm-hmm. yenn saa nga jékki-jékki ñu ne diw bàyyi na nangam nga jékki-jékki gisaat ko mm-hmm. loolu nag amul ci tuub mm-hmm. yàlla nee na boo xasee ni damay tuub wa niyatu allaa yahuuda ila danbin dootoo delluwaat ci bàkkaar bi tax ngay tuub sa giiru dund nag à vie fii maa baqiya min umrihi li la desee ci sa dund dootoo baam dootoo defati bàkkaar boobu li tax ngay tuub noo pare nga ci mu ne nag boo ca jógee wa an yatrukal maasiyata fi saatiha hmm. mooy yàlla bi tax ngay tuub danga koy bàyyi ci hmm. saase léegi nag boo yéenee hmm. réccu ne bàyyi naa lépp nag yàlla nag doog ne ah accepté naa nag sa tuub tuub googu nag oustaz moom la réew mi war a def joxaat yàlla sunu bopp oustaz dafa bari bàkkaar yu réew mi di def te yàlla bëgg ko mim réew waaw mësuñu yàlla yàlla mësul insister xam nga liñ naan diw moom loolu kafaa ka du ko kafee mhm. dafa mbàkkaar yoo xam ne yàlla du ko kafee mhm. bokk na ca góor jigéen mhm. yàlla lu ne mën na koo kafe moom yàlla ba mu des góor jigéen parce que góor jigéen a taxoon mu alak nitu waa luut ya da wax bi góor jigéen. Mhm. moo taxoon yàlla alak nit wàllu yëpp. foofu est-ce que duñ juum bu ñu maanaam maanaam damay bañ xam nga léeg bu ñu waxee góor jigéen dafa am ñoo xamante ne ni ñu ko bëgg a àttee. waaw ak ni nga xam ne noonu la ñu xamee góor jigéen. Mhm. mën na bañ a nekk benn. Mhm. ndax koo xam ne dafa am dafa am yaru jigéen ndax lañ koy natte góor jigéen. wala koo xam ne dafay jëf jëfu jigéen wala koo xam ne kàddoom moo jigéen wala jëmmam moo jigéen na mooy góor jigéen ko yooyu yëpp duñu ci àttee góor jigéen. li ñuy àttee góor jigéen. mooy li ñuy tuddee xaw ma trans xaw ma naka lañ koy waxee. Mhm. damaa déggul français nag. Mhm, kon ñoo yem. mais <laughs> mais bépp góor goo xam ne. Mhm. dañu lay sëyee comme ni ñuy sëyee jigéen. la waa la nitu waa luut ya daan def. walla ngay sol solinu jigéen. di nuru nuru lu jigéen na ko Seydunaa Muhammad waxee ca xadis ba ni yàllaa ngi rëbb. bépp góor goo xam ni. yaa ngi nuru nuru lu jigéen. Mhm. boo demee itali walla France boo jaaree ci rii yi xam naa Alioune Ndiaye xam na li may wax am na ñu mhm. nu tuddee ay trans. Mhm. ñooñu boo leen gisee oustaz. yëre jigéen lañuy ñuy sol. dem nañu ci yenn dëkk yi nga xam ne dañuy opérer ay ween ñu baal ma ci kàddu gi. ñu opérer leen ko. am na ñoo xam ne sexe bi leen yàlla joxoon changé nañ leen ko. nga xam ne tey ñooñu jàppee na bu maanaam. boo ñëwee Italie di doog a wàcc yem ci ñoom soxna si nga leen di wax soxna si dooma baal nangam parce que doo leen teg góor mais ay góor lañu mais dem nañu ba soppeeku ci fànn yépp ba nga xam ne tey boo leen dee xool jigéen nga leen di teg kooku ci góor jigéen ñi la bokk am koo xam ni grand bu lay sol sol koppateem yor kurusam mais mi ngi joxe boppam ñu koy tëddee comme ni ñuy tëddee jigéen ba tey loolu ci góor jigéen lay dugg te loolu bàkkaar la boo xam ni nag oustaz bàyyil xel ni mm-hmm. yàlla di alag nit waa ni malaaka mi mm-hmm. say laaf roof ko ba mu sës yëkkati ba nu tiim dëkk ba ba njanaaw yi sab nga dëpp leen mm-hmm. te taxoon yàlla def ko jëf ja taxoon yàlla alag nit waa luut ya am na ci réew mi te yàlla alagul réew mi xam nga lu tax mm. wa ma kaana allahu muazibahum wa anta fihim moo tax ñun amuñu fayu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenent bi mm-hmm. lépp moom la mm-hmm. yàlla daf ko ni woon mm-hmm. li fekk yaa ngi ci seen biir duma leen alak kon <laughs> maa ngi ñëw uh-huh. li fekk oustaz yaa ngi yewoondoo ak ñoom nekk ci seen biir duma alak kenn est-ce que ñun jarul ñu daal suñu bopp ndax yonent bi day newatu fi. <laughs> pexe am nga laay am nga laay ji daanoogul. Ah. léegi ñu ni ko. waaye yow boo fi jugee. Mhm. ñun ñu des fi. Mhm. mais nu ñuy def. Mhm. parce que yow ki nga ñuy rusee dem na. ñun cundum ñoo fi des léegi daal yàlla dangaa bëgg a wax ne bu fi Seyduna Muhammad jugee. ñun lu nu def doonu baal. yàlla mottali aaya bi ne wa maa kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun li fekk am na ci ñoom mm-hmm. ñoo xam ne ñi ngi saxoo astaghfirullah mm-hmm. ba tey duma leen alak mm-hmm. moom laa la wax sànq ni la ñi ci kër gi ñoo fi bàyyi ñi ci naaj wi ñenn ñiy jéggalu yàlla ñoo tax yàlla alagul ñi ci des am na ñoo xam ni bàkkaar yu ñuy def yàlla alagu leen di leen seetaan nga yaakaar ni yàlla daa seetaan seetaanul de dafa am lu mu waxoon ak yàlla te yàlla lim xas a wax dara mënatu koo changé alquran ayatu xaqin min arrahmani muhdasatin xadimatun sifatul mawsuufi bil xidami na ko eh, burdu waxee mhm. alquran waxam dafa dëgër te yàlla bu xasee wax dootul soppi ay waxam mhm. yàlla wax ci alquran ne li fekk yonent bi mi ngi ci seen biir mhm. fi laa koy bàyyi du leen bugal bu fi jógee am ci ñeen ñuy wax astaghfirullah oustaz même boo waxul astaghfirullah man waxuma ko Alioune Ndiaye waxu ko techniciens yi waxuñu ko boo toogee ci kanam tuuti bu nu jullee timis da nga dégg astaghfirullah azim alladi la ilaha illa huwa alxayul qayyum ci jàkk ji muy jolli kon bu ñu bu ñu ko waxul ñun ñee ña ngi koy wax te yàlla nee na li fekk ñenn ci yéen ñi ngi koy wax dana seve ñi ci des kon daal solution bi mooy tuub dellu ci yàlla léegi léegi dafa am loo xam ne maam Seydi Hadji Maalik dafa ko mosoon wax radiallahu taala radiallahu taala anhu mu wax ne jamono mu ngi ñëw jaamu yàlla sa kër moo gën dem jàkk ja ñu ne ko lu waral loolu mu ne parce que mën nga julli sa kër euh, sa jàkk ji génn gis loo xam ne mën na yàq sa julli ak yeneen ya nga xam ne moom la ci teg kon dafa mel ni jamono boobu dañ ci toll mm-hmm. nga xam ne tey li xew ñu wax feebar ñu wax ne kenn ku nekk na nga toog sa kër ba ñu julli ji sa jàkk ji mu jur coow mm-hmm. lan moo waral loolu waa xam nga Seydil Hadj Malick ustaas yàlla na nu ko yàlla fayal amiin Alaaji Malick dafa nekk sëriñ boo xam ne sëriñu nàndite la hmm. dafa am xam-xam Alaaji Malick hmm. mën nga koo tuddee sëriñ mais mën nga koo tuddee sëriñ bu nàndite xam jamono hmm. parce que sëriñ Cheikh Tidiane si nee na nuru sa jamono moo gën nuru sa baay xam nga yàlla dafa waxoon ni euh, wa ida xalaltum fastaadu suñu demee màkk mais tey jamono moo ñëw soppi ko bari na yu xewoon démb oustaz xewatul tey dëgg xam nga jamono bu njëkk maa ngi ciy waxtaan ak sama benn wëllëre Oustaz Souleymane Diop. Mhm. mu ne ma jamono bu njëkk pa boo gis. bu mhm. tabaski jotee wala korite bu solul garamb bu borode rek. wala zaka mbasin. Mhm. pour pour moom sañsewul mu ne génération bii nag koo ko ñaawaloon jox ko ko du ko sol. ndax ni dafa xewi. Seydi Hadj Malick nag dafa dégg jamono comprendre jamono. xam nga Oustaz Seydi Hadj Malick la muy wax ba mu koy wax booba mbon gi sax xëy na agseegul fii mu agsi ndax Seydi Hadj dajewul ak jamono yi colin yu bon yi xew léegi mhm. ndax réew mi mhm. oustaz colin yi xew léegi ñaaw na ba fa ñaaw yam mhm. la xadis ba waxoon ni danga gis ko solo ba pare rafle jàpp ni solo na fekk dafa rafle moo fi am am na jigéen ñoo xam ne li nuy sol mënuñoo am doom ju baax. Hmm. parce que wax nañu ni sa jumbox bii jigéen jumboxam bii bu dee génn ngelaw lii di ko ëf. pour mu hmm. jur lu baax dana jafe. Hmm. parce que am na fen am na yenn feebar yoo xam ni téere yi wax nañu ni. du dal benn jigéen ku dul ki sa jumbox di nekk ci biti. am na ñoo xam ne tey bu nu soloon tiset dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy lem. pour seen jumbox di génn. ñàkk doom ju baax ji moom lu mu ci. parce que ngelaw bi lay dugg ak shayatin yi ne ci air bi lanu wax ni buñ laxasee xasee solo pour nga jur lu baax dana jafe ça dëgg indi nga problème waaw ah bu fekkente ne ngelaw loolu noonu bu fekkee ni nit daf ko daf ko jël maanaam jigéen dafa jël ngelaw loolu nga xam ne moom la ñuy noyyi nii ñun ñëpp mhm. moom du ci am doom ju baax ana ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci air bi moom xam nga boo dee dugg ci douche ah. dañ la ni donte le da ngay faj sa aajo sax. Mhm. muslul ñi fa nekk ndax mën nga faa jëlee feebar. Mhm. ci dugg ci duus kese kese kese. Mhm. ñu ne la balaa ngaa dugg rek waxal allahumma inni. auzu bika minal xubusi wal xabaisi jiital sa tànku càmmoñ. parce que dafa am seytaane ay seytaane jinne yoo xam ne dañoo dëkk ci biir duus bi. boo fa duggee mën nañ laa transimer feebar. nga dem hôpital yépp ñu ne gisuñu ko. feebar boobu ñu lay jox ca biir douche ba kala ca mën a musal mooy yàlla mhm. na mu ko defee ci biir douche boobu muy ay jinne yu la koy transimer mhm. noonu la ko joxee ay jinne ci air bi yoo xam ne doo leen gis mhm. te ñoom benn bëgg-bëgg rek lañ am mooy jigéen joo xam ne jumbo xam mi ngi ci bitti waaye boo defee oustaz li la Seyduna Muhammad sant mooy sol lu jot yàllaa ko waxoon yón euh, ya euh, alquran da ko waxoon yaa mm-hmm. yoon nabiyyu xul mm-hmm. li azwajika mm-hmm. wa banatika wa nisaa il muminine yudnina alayhinna min jalabibihinna sol lu jot réew mi solatunu lu jot am na ñoo xam ne tey buñ la rombee la xadis ba waxoon li ma la wax sànq dañu mel ni dañu mel ni ku solu te danoo rafle parce que ya jigéen ñemewul woon sol démb ak bërki démb na ko taxaw tey ñu ngi ñu jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bisimilah tur beeg fooy wootee. Eh, alhamdu rabbi wan maa ngi woote fii ci Ndakaaru. Mhm. di nuyu sama soppe boobu oustaz eh, Modou Fall. Ah, mhm. kii de moom sama xarit la moom xarit bu yàgg sax. sa xarit sa soppe. wallaay xarit bu yàgg. Mhm. <laughs> waaw di am mbégte lool si seen toogaay boobu jotaay bi. jërëjëf jërëjëf Cheikh Hamdou. te di rafetlu li nga xam ne yaa ngi koy liggéey ci réew mi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf wan. yow yàlla dogal na ñi nga xam ne euh, ba ñu demee bitim réew seen xel nekkul rek ci utum alal ngir ñibbisi. Mm-hmm. yow li jara ut nga ut moo tax moom nga delloo si ci réew mi di ko liggéeyee muy ut yàlla am yàlla. jërëjëf jërëjëf wan. yaa ngi ré yaa ngi yee réew mi yaa ngi teg say kaddu yépp ci dëgg. jërëjëf jërëjëf wan. ndax dëgg nag mooy yàlla yàlla mooy dëgg. dëgg la. Mhm. allahu huwa alxaq walxaq huwa allah jërëjëf. Mhm. Sénégal rek laa gis nag bu ñu waxee dëgg rek ñu ne la wax nga dëgg waaye déedéet waaye kay warul dëgg dëgg rek la. <laughs> wallaay dëgg la. <laughs> bu ko defee maa ngi am mbégte lool ci gis leen ci eh, seen émission bi. bég nañu bég nañu Thierno bég nañu lool. te yàlla yàlla dogal na sama woote bu njëkk ci télévision fii ci Sénégal fii la njëkkee muy bés bii tey. ndeysaan jërëjëf jërëjëf Thierno Hamdou Rabby Wane jërëjëf. Mhm. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal yàlla nag yàlla na leen yàlla sàmm ci mission bii ngeen nekk. amiin amiin wan amiin yàlla na ko yàlla boole. amiin amiin waaw maa ngi am mbégte lool ci yéen bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu wa rahmatulah jërëjëf macha allah ñu ngi koy jaajëfu bu baax a baax kii di woote nag day day day nit ku baax ndeysaan mm-hmm. Cerno Hamdu Rabbi wan mm-hmm. eh, Cerno Abdourahman Bari bu boggal bi ngay dégg mm-hmm. kii mooy loxo ndey jooram ndeysaan nekk jàmbaar nekk boroom xam-xam bari na ñoo xam ne ci réew ma bu nu organiser gàmm mbaa conférence bu nu mhm. ko gisee seen xol dafay sedd mhm. ndax mag la moo xam ne mag mu sell la mag mu mhm. mën a jaamu yàlla di ànd ak kilifa di loxo jooram di léppam di koo xam ne macha allah bu wootee dañuy am bégte ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yokk dëgëral ceerno xamdu rabbi wan mu baax moom yàlla na ko yàlla taxaw ci daraja yonente bi alayhi salaatu wa salaam allah ñu ngi koy jaajëf bu baax a baax di wax mbokku téléspectateur ne mën nañ jaar ci 33 889 euh, 43 19 889 33 898 43 19 incha allah bu ñu si jaaree mën nañ jokkoo ak nga xam ne moom moo Oustaz Modou Fall euh, bu ko defee ñu bàyyi la nga continuer fi nga nekkoon incha allah. Uh-huh. Oustaz maa ngi woon ci solin yi xew ci réew mi. Mm-hmm. Sénégal ngay gis. Mm-hmm. jigéen ju soloo ni mu ko neexee. Mm-hmm. bokk ak ndeyam ak baayam kër gi te duñ ko wax dara. xam nga bu njëkk jigéen ñi bu ñu daan sol tubéy jiin jiin mm-hmm. lañ daan sol mm-hmm. dañuy jël jiin bi lem ko ba mu sew ñu dugal ci saag bi mm-hmm. tëb miir bi wodd parce que dañuy ragal romb yenn kilifa yi ci koñ bi wala bu bu leen seen papa gisee ñu sol tubéy mu indil leen problème mais léegi nag nit ñay jigéen ñay sol lu bon toogandoog seen papa yi am na ñoo xam ne kiloot lañuy sol di añ bokk ak sa papa bokk ak sa yaay te du xorma am na ñoo xam ne tey balaa ñoo kontaan wane seeni i cër. Mm-hmm. am na ñoo xam ne tey bu ñu dee vidéo seen bopp balaa ñoo bëgg génne seeni i ween. Mm-hmm. am ñoo xam ne balaa ñoo kontaan génne seen forme. Mm-hmm. wëndeelu jaay sa bopp wane say cër. pour yow boo ko deful branché woo. am na ñoo xam ne tey bu nu amee tisi yóbbu ca téer ba balaa ñoo kontaan daf leen koo fantal fant bu gudd. seeni i cër di feeñ am na ñoo xam ne lu ñaw bi sew sew moo leen gënal. bu xawee yiwee bëgguñu. am na ñoo xam ne àdduna la ñu topp ba fàtte yàlla. Mhm. te kat lu bon li ngay sol bàyyil xel ni bis a ngi ñëw lu da nga sol lu jot. Mhm. moom daal loo bëgg-bëgg sol lu gàtt. Mhm. loo bëgg-bëgg fant ay sipp. loo bëgg-bëgg sol yu sex génnee say ween sinap wane àdduna bi ñëpp gis say cër loo ko bëgg-bëgg bis a ngi ñëw mu neex la mu naqari la danga sol lu jot ndax juróom-ñaari perkaal ku nu ko wërale sol nga lu jot te nit ñi war nañuy bàyyi xel seen première guddi ci bàmmeel mm-hmm. guddi gën fay njëkk a fanaan mm-hmm. yàlla ñëw war a wéet ak yow li nga fi nekk woon ci àdduna bàyyil xel ni yàlla da ngay dajeeg moom moo ko waxoon mm. minha xalaqnaakum mm. wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra mm. yàlla nee na ci man ngeen jóge te ci man ngeen di dellu si fa ngeen jëm rafetal leen ndax lu mu yàgg-yàgg da ngeen di dajeeg man te bu ngeen dajeeg man maa leen di àtte danaa leen laaj ba ngeen yaakaar ni yéen képp laa bindoon ci jàmm ñi loo mas a def ci àdduna oustaz dana yàlla dana wéet ak yow mm-hmm. jëw yi ngay jëw yàlla dana la ko laaj mm-hmm. fen yi ngay fen sos yi yàq der gi mbon gi xew ci réew mi liggéeyante bi defantelu lu bon li xew ci réew mi soxor gi mhm. pour quoi oustaz am lii te aw ko man lu tax mhm. loolu di la di la naqari yàlla neen danaa laaj lu tax mhm. li nga fi nekke woon jëf yu bon yi oustaz internet bi ngay xool ñëwan la ay liggéey yu ñuy sulee ci ay armeel néew bu tëdd amul ak yow affaire génn àdduna tëdd di nopp lu nga sulliku jël ay liggéey dugal fa ba nu jàpp la génnee ko ibbi xaatim bi muy ay dëddale Mm-hmm. diw na bàyyi diw mm-hmm. diw na bàyyi diw waaw yow ki ngay bàyyiloo diw ba leen di yàlla di boole ca aras danga nga ko fekk mm-hmm. mbaa xam nga ni ku ne bi nga amee ñeent fukki guddi la yàlla namm li mu namm ci yow lépp yàlla bind ko kenn mënatulaa xañ maam cheikhul xadim dafa waxoon ne bi ma gëmee ñaar ci laa noppalu ad durru wa nafu min arrahmaani lii jëriñ nit ak la koy lor ca yàlla lay jóge kenn mënta lor kenn réew mi amul ay gaynde amul ay segg amul bukki amul golo ñépp ay nit lënu na ku ne mm-hmm. gëm yàlla te nekk ci li nga war a nekk mm-hmm. kenn mënu fee gaynde gayndelu ba nu faale la mm-hmm. kenn mënu fee segg segg lu ba doon segg nit ngay doon di sangu di feebar di wér di lekk di naan ñàngal geeg tàng tàngalu geeg naqari deret geeg xol yu amul sens mënoo doon segg nit ngay doon nit dellul fa la yàlla fa la yàlla delloo woon démb muy nit nga doon ci cadre nit mais oustaz réew mi dafa doy waar. Mhm. bàkkaar bu yàlla alage woon ñi fi jiitu. Mhm. nit ñaa ngi koy def. Mhm. sunu borom nag day seetaan. mbaa xam nga ni yàlla dàq seetaan ñëpp. parce que xam na ni moom <laughs> oustaz comme xam na ni kenn du ko rëcc. kenn du ko rëcc. te ñëpp ci benn bunt lañuy ñuy jaar. buntam bi mu taxaw ñëpp fa la ñuy jaar. sàcc bu dul raw jar te yàqi nelaw. dëgg la moo tax kenn jaralu ko def dara patt rek la maye.

oustaz léegi li nga xamante ne moom mooy ñaawteef gi nga xam ne moom moo xew mhm. loraanga gi nga xam ne daf koy lore mhm. ci dafay dellu ci ki nga xam ne moom mu ngi koy def moom rek wala dafay laalaal société bi nga xam ne moom la ñuy dund oustaz xam nga bàkkaar mhm. ki ko def lanu koy bindal dunu ko bindal ki ko deful ndax wala taziru waziratun wizra oxra kenn du gàddu yëfu kenn mais bàyyil xel ni yàlla nee na su may alag waa dëkk mhm. ngir ñaawteef mhm. ustaas baak mhm. imam baak sëriñ baak doomu soxna baak ku fa newoon bu may alag ka tax ka bàkkaar ka jëf bàkkaar ba yàlla nee na ñépp laay boole ñu ne ko waaw yàlla ñu nga ci boole defuñu dara <laughs> mu ne parce que bi muy def ñooñ ñu ngi ko doon gis moo tax wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa la yàlla wax yàlla nee na moytu leen fitna boo xam ni dafa mel ni am na ko taxaw ci buum bi allo salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah tur fooy wootee Awa maa ngi wootee Zac Mbao Awa bismillah di kontaane seen émission rek am na solo trop tabarakallahu Euh, ki nga invité vraiment maa ngi seetaan émission depuis sànq ba léegi gis naa ci sama bopp vraiment. Hmm. jërëjëf kontaan naa ci trop de bàyyi. jërëjëf jërëjëf ñaan yàlla tamit Sénégal vraiment ak képp ku nekk jullit ñu bàyyi xel. Hmm. parce que àdduna amul solo. dëgg la. Hmm. àdduna allah allah xel ci yàlla lañu jóge ci yàlla lañuy delluwaat. dëgg la bon mën nañu waa. ñun képp xoolaat képp dund war na xool ku ne. Mhm. yàlla rek moo fi am te yàlla rek moo fi mos a am ba abadan daay man. macha allah. waaw may ñaan nag lañ nañ ñëpp góorgóorlu képp ku nekk jullit. Mhm. ñu góorlu rafetal xol yi. Mhm. rafetal jëfin te xam ne àdduna amul benn solo. wallaay ndeysaan di bi yëpp. sant leen di leen gërëm. invité bi waxtaan bi am na solo trop xaw la nag mais. damay damay gis say vidéo ngay wax loo xam ne dafa am solo trop. ma ciy kontaan vraiment. jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi lay kontaanee bu baax. jërëjëf jërëjëf. ngi lay jërëjëf soxna Xawa ñu ngi lay ziar bu baax macha allah di leen wax nga nuyu ñu waa Jacques Mbao yëpp. di fàttali ba tey numéro bi mooy 33 898 43 19 incha allah bu ngeen si jaaree mën ngeen jokkoo Oustaz Modou ñu bàyyi ko bu yeggal incha allah. Oustaz xam nga li nga laaj dafa am solo. Mhm. yàlla buy alak du alak ki yëf mhm. wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina dalamu minkum xaasa mhm. yàlla nee na moytu leen fitna boo xam ni mhm. buy ñëw du yam ci bopp ki ko def parce que daf ne woon moom yonent bi al fitnatu naimun laana man ay xazaha fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ki ko yee am na jëf yoo xam ni bu ko benn nit tey def. Mhm. bu yàllay lay alak bi yëpp lay alak. moo tax tiit tiit dafa jot. Mhm. yenn bàkkaar yi boo gisee mu am ci réew mi. Mhm. te ko daan def yàlla alak na leen. yàlla di seetaan ba léegi. Ah, am na comme ñu rusee ñaanu mag ñi oustaz mbaa yëg nga ni bokk na ci li tëye réew mi. ñaanu mag ñi ñaanu mag bokk na ci li tëye réew mi. mag ñi seen téere yi nu def. yu ci ëpp. jaamu yàlla lañ ci yéene lu ci ëpp jaamu yàlla lañ ci yéene parce que ñoom dafa am fu leen yàlla toll yàlla dafa bëgg ko koy bàkk parce que moom ci boppam rek day bàkk boppam huwal awalu wal aaxiru wal zaahiru wal baatinu yi muy wax yëpp moom moo gën a xam ne moom lool la mais day bàkk boppam mais boo xoolee ku mel ni wala heure bi dafa jot. yaa bisimilah boo xoolee ku mel ni Cheikhul Khadim. Mm-hmm. maam Serigne Touba. Mm-hmm. bu dee woy yàlla da ngay gis ni muy bàkkee yàlla. Mm-hmm. Cheikhul Khadim dafa bàyyi xel yàlla. bu ko dee woy dangay gis garaat yi mu koy tappal. pour wan yàlla ni ko man aw ma cër ci sa kanam. Serigne Touba. yaa maalikal mulki. yaa man jalla an qawadin. Serigne Touba takkal yàlla ay garaat. ba yàlla ni ko cheikhul xadim loo bëgg mhm. mu ne ko yàlla benn soxla laa am te boo ma ko fajalee ma xam ni yow yàlla la nga la la nga tuddee sa bopp doon nga ko mhm. jéggalaakoon bu mag bi nga tuddee sa bopp mhm. man yàlla soxla bi ma am man cheikhul xadim fajal ma ko benn soxla rek laa am imagine li yàlla réservoir la ne la loo bëgg cheikhul xadim yàlla ni ko sëñ Tuubaa loo bëgg mu ne ko irham jami al yàlla maa ngi lay ñaan bul topp kenn ci xeet wi yóbbul ñëpp àjjana irham jamii al wara yàlla maa ngi lay ñaan xeetu sayduna muhammad na ñépp dem àjjana yaa hadiyan radaa yàlla li ma lay ñaan sax am naa ci yaakaar parce que yow yàlla borom baax nga yaay jubalaakoon bu mag bi bàkkaar yi bari na kenn jéggalewu ko ku dul yow man cheikhul xadim benn yitte laa am soxlawu ma dara nag ci àdduna li ma bëgg yow yàlla daal man Serigne Touba nga defal ma ko mooy jéggalal mbindeef yi ñëpp dem àjjana sama coono bi ma daj mm-hmm. fi ma jaar mm-hmm. fi ma jaar ak tubaab bi mm-hmm. coono yi ma jànkonte lépp yàlla li muy metti metti daal xam nga lu ma bëgg mooy jéggalal ñëpp ñu dem àjjana ndeysaan yal na yàlla nangu ñaan googu amiin yaa mu ngi ci yal na yàlla mottale ko ewa eh, oustaz dañu jëm nag ci bés bu mag bi te bu ñu waxee at mu bees ndeysaan suma su suma classe gi ñu bëri jàpp nañ ne tey bu ñu waxee atum jullit ñi mu ngi tàmbali li nga xam ne moom mooy Ashura wala Tasua ñu jëm ci bés boobu nag am ci loo xam ne diine la wala boo am ci loo xam ne sunna la am ci loo xam ne aada la te bu ñu ko lëkkalee ak li nga xam ne moom la ñuy waxtaane muy yàqu-yàqu yi nga xam ne moom moo xew mm-hmm. dañ koy seetlu bu baax ci bés yooyu lan nga ñuy wax ci ñaar yooyu maanaam la ciy sunna ak la ciy aada ci tamxarit xam nga oustaz mm-hmm. maa ngi koy wax ci tabaski bi sama benn waxtaan bu ma doon def mm-hmm. ma ni dañoo génnee léegi diine Mhm. ci bisu diine. Mhm. indi aada bëgg ko remplacer. ci laay wax bay wax ni. sa góor ga dañ ne woon na senegal moom diine bu mu xeex ak aada. <laughs> aada daan ko <laughs> dëgg la de. parce que bu fekkente ni bii dem nañu ba. Uh-huh. li ma wax ci tabaski bi. Mhm. oustaz boo rayee sa xar. ñu ne la tànk bi tànku njëkke la. fàllara gi bu goro la. ah. res gi rakku jëkkër a ko moom. maanaam xar mi yépp léegi séddalee nañ ko ay cër. lan la ca yàlla am. taqwa xanaa. Hmm? taqwa da la parce que taqwa gi nit ñi ba nu ko ba nu ba nu perdee taqwa gi. Hmm. mooy bi nu demee ba jël tabaski mi yàlla santaane. Hmm. jaarale ko ca maam Ibrahim. wax ni lan yanaala allaha luxumuha wala dimaauha yàlla kay bu ne man soxlawuma yàpp ragal yàlla gi laa soxla yow tam waroo soxla yàpp ragal yàlla moo la war a intéressé. defee ko jaamu yàlla. mais tey dem nañu ba. Mhm. oustaz tey bu sa soxna yónnee tànku njëkkee. sama dafa am na ku ne ci ne ñu dégg te ñëwaat allo salaamaaleykum. allo. waaleykum waaw. waaw man la waaw. Pikine ni ñu woote. Pikine naka waa Pikine. mbaa ñëpp a ngi ci jàmm. alhamdulilah arikaal naka. ngi sant yàlla bu baax macha allah. yàlla yàlla doole sant bu baax. amiin waay amiin yàlla nañu ko yàlla boole. allahumma amiin. amiin ah, macha allah. waaw bisimilah loolu ñu fasaat. incha allah. ndeysaan xam naa rëcc na incha allah ñu bàyyi la nga continuer. yaa ngi dégg oustaz. Mhm. tam xarit. Mhm. feetu jullit la. dafa mm-hmm. am yu ñu ci yàlla sant. Mm-hmm. mu nekk ay sunna. Mm-hmm. ndax xew-xew yu bari ci lislaam ci tamxarit la xew. mu nekk bis bu màgg. ci bu fekkee xam na nañu ñun lan mooy tamxarit. daan nga dégg ñu naan bu timis jotee boo xoolee kaw asamaan da ngay gis Sayyidatuna Fatima muy fóot. ma ni leen Fatima mën mënul di fóot chaque année. Mm. fóot moo xam ne chaque année mu fóot ko. Mhm. xanaa <laughs> li muy fóot moom du wow. <laughs> wala moom da dal dalul set. <laughs> wala fóot mi dalul set léeg-léeg itam. Uh-huh. nga gis ñu reer ba pare. Uh-huh. ñu dëpp bool bi. Mhm. di këpp këppal ba fajar jot. Mhm. sa loolu du ormal ñam. yàlla def ne woon kulu wasrabu. wala tusrifu. dëgg la te loolu ñuy def ci yàq la bokk. beneen bi ci des mooy. Mhm. bu guddi jotee nga dem sol yëre jigéen. Mhm. nuru nuru lu jigéen. Mhm. bokk ci. góor dem sol yëre jigéen ci lislaam dafa xaraam. Hmm. yonent bee ko wax yàlla rëbb na koy nuru nuru lu jigéen. ak jigéen juy nuru nuru lu góor. yooyu yëpp dañ koo jël ñun dugal ko ci tamxarit te bokkul ci tamxarit. dafa am yu ñu la waxoon ni la. boo mënee jàng alxuraan jàngal mm-hmm. alxuraan mm-hmm. soo mënee def ay tasbihaat ay azkar ay mm-hmm. hayla la nga def ko boo mënee ziyaare ji oustaz Mohamed Meng nga dem ziyaare ji ko oustaz bisu tamxarit danoo sopp nga dem ziyaare ji boroom xam-xam boo yoree loo ko jox nga jox ko ko xam nga yàlla sax ñun oustaz yi may nañu sens ci suuru tamxarit boobu xay na pour ñu jox ñu dara Mm-hmm. mais nit ñi duñ ko def. Mm-hmm. tam xarit. Mm-hmm. demal seeti borom xam-xam <laughs> nga jox ko dara. Uh-huh. ci tam xarit dañ la ni tam xarit demal ziyaare ji boroom xam-xam. boo ziyaare jee borom xam-xam nga seddal xolam. mais ñun oustaz tam xarit tam wala oustaz yow yaa ngi encaissé tam xarit. <laughs> bëgg na sax booy encaissé nga woo ma encaissé waale. <laughs> mais ñun comme am nañ bonus su tam xarit nan ñu ah. gestu. nga dëgg de. tam xarit la ñu am. Youssou ja Youssou yaa ngi dégg loolu. la ñu am. Youssou salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah. yaa. da ngay bàyyee télé bi nga doolu ci téléphone bi. di rafetlu. rëcc na ma bàyyi nga yeggali. yaa ngi dégg oustaz naa allah mën na jaaraat ci fi mu jaaroon rek muy 33 898. 898 43 wala boog 43 19 incha allah. yaa ngi dégg oustaz. Mhm. demal seeti ji borom xam-xam. Mhm. boo demee nga sàkku ci moom ñaan. Mhm. boo yoree sa ñaar téeméer nga jox ko. boo yoree sa dix mille nga jox ko. te bañ koo rëyal. ndax yaa ngi dégg oustaz yi bu koor jotee ñu naan seen traite ñëw na. Mhm. man xawmul tax Sénégal bëgguñu oustaz yi am xaalis bëgguñu ko. oustaz bu la romb tey yor 4-4. Mhm. yow lii njëkk a ub sa bopp bi mooy mais saa yi 4 lay dawal de. Mhm. oustaz 4-4 la ah. wala du 4-4 la. yooyu lañuy wax. wala nga yor téléphone bu baax. nga dégg ñu naan ii oustaz sii yow bi nga laal xam nga ko. waa léegi oustaz moom ab lan la ab poupée la wala oustaz du nit wala oustaz moom lan la. <laughs> ah dafa war a dund àdduna lañ jàpp ne. oustaz bu war a dund déet oustaz. Uh-huh. teraanga àdduna bu ko yàlla di joxe. Mm-hmm. ka war a jiitu mooy borom xam-xam. Mm. ah oustaz xayrukum man taallama alquraana. yaa ko wax. sallallahu ki gën ci nit ñi. Mm-hmm. mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale. Mm-hmm. ki gën ci nit ñi. Mm-hmm. kay lii gën laa yaa ko war a yor. 4 mm-hmm. x yu rafet yi yaa ko war a dawal oustaz. Mm-hmm. téléphone yu baax yi yaa ko war a yor. lépp lu nit di am kenn warula ciy jiitu. parce que Serigne Cheikh Tidiane si neewoon na jamonoo ngi ñëw xam-xam dana teral nit ba ñu teg ko buur. mais Sénégal li nu jàppee oustaz. Hmm. mooy nii nga def tey sol sa jesner bu rafet kase ko ak sa mbaxana takk sa montor yor sa kurus. Hmm. macha allah doon taaliba cheikh <laughs> tey am na ñoo xam ni li nu jàppee oustaz xam nga mooy lan. Uh-huh. sol ñaari marakis yu nëroowul. Hmm. sol vaccin boo xam ni baat bi day ñëw ba fii. dàll yu pënd. loolu la ñoom oustaz xalaatuñ ci dara. lu dul ni fu nu la gis dañ laa war a yéene sarax ah oustaz teyel téeméer yi boo demee jënd ci paquetu suukar lu oustaz di doyee paquetu suukar. li nu xalaat daal ci oustaz réew mi am na ñoo xam ne li nu jàppee oustaz mooy oustaz warta sañse warta am téléphone bu baax warta dawal oto bu rafet buñ la gisee nga dawal oto bu rafet dañuy tiit waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ziar nañ leen ñu ziar ba bismillah tudd ak leen sant bu baax ci émission bi jërëjëf macha allah jërëjëf macha allah da ngay bàyyi télé bi xamal ngeen ma ci lu bari lu ma xamul woon di leen ñaanal baal ma Mm-hmm. yàlla guddal seen fan te kàttanal leen jéggal ñu ñun ñëpp. macha allah da bàyyi téléphone euh, télé bi nga déglu ak téléphone bi. xam naa rëcc na ñu fàtte incha allahu mën nañ jaar ci 33 899 43 19 incha allahu pour jokkoo Oustaz yaa ngi dégg boo ko mënee demal ziyaare ji boroom xam-xam mhm. boo ko mënee demal nga raay bopp jirim mhm. moom itam fàttaliku ko mhm. ndax événement yu mel noonu bu amee ñi ñàkk seeni jur boo xoolee dañuy xaw a mel ni ku tumurànke parce que léeg nga gis événement jot ku ci nekk nekk ak papaam nekk ak yaayam yow gisoo sa papa gisoo sa yaay dafay metti ci xol donte la yàllaa ko dogal moo tax ñu bëgg ku mel noonu nga dem seeti ko maanaam ñaanal ko wéttali ko wan ko ni wéetoo yaa ngi dégg ziyaare ji itam ku feebar bu fekkee xam nga ko ñaanal ko yàlla yëkkati ko yooyu yëpp di ay xeeti baax baax yoo xam ne daal bu nu ko mënee def ci bis bi ñu def ko incha allah yii lañ ci sàkk waaye sàkkuwuñ ci waxtu wi daf ñu dab daf ñu dab daf ñu dab lool incha allah te bëggoon nañ indi maanaam li nga xam ne moom mooy euh, waxtaan bi tey bu ñu doon def benn objectif ne lii lañ ci bëggoon lan nga ñuy tënkal ci loolu ma joxe wàll sa kàddu bu ñu tàggatoo. jërëjëf euh, Oustaz. Mm-hmm. waxtaan wi. Mm-hmm. li ñu ci bëggoon rek. Mm-hmm. mooy baaxee jaamu yàlla yi. baaxee ko suñu bopp. ndax wax jii ñuy wax ñun ci lañ bokk. ndax yàlla def ne woon atamuruna annaasa bil birri wa tansawna ko di wax nit ñi lu baax fàtte sa bopp baaxul. ñun ñëpp ñu ngi ci biir. li ñu jublu ci wax ji rek. mooy ñëpp teguwaat ci yoon mm-hmm. li ñu jublu ci wax ji mm-hmm. mooy ñëpp baax mm-hmm. li ñu jublu ci wax ji mooy ñëpp jub li nu jublu ci wax ji mooy ñi wàccoon raay bi mën a xalaataat ñëwaat ndax yàlla nee na laallakum day bari na lu mu koy wax ci alquran mën na am laallakum tatafakkaruun laallahum yatazakkaruun mën na am nga xalaat mën na am nga ñëwaat bëgg rek nit ñi xalaat ba dellu lii lañ ci jublu waxaat nit ñi qualité yi nga xam ne mooy qualité baax mhm. xamalaat nit ñi kan mooy yàlla mhm. jële leen fa nu nekkoon indi leen fi yàlla bëgg mhm. allahu waliyu ladina amanu yuxrijuhum min azulumaati ila nuuri ñu bëgg yàlla génnee ñu ci lëndam gi nu nekk teg ñu ci leer loolu rek lañ ci jublu yàlla yàlla defal ñu ko jéggal ñu suñuy bàkkaar bég nanu ci invitation bi bég nanu ci bokk gi nu bokk ak yow plateau ndax léeg-léeg nga bokk koo xam ne plateau boo nee guy ga dana daqaar ga mhm. mais yow buñ doon waxtaan fii ba suba mhm. duma ma doyal parce que dégg nga macha allah mhm. te itam am nga dalu déglu ki nga invité. am na ñoom dañu lay invité ba pare gën laa rëy làmmiñ mhm. dàq laa wax. <laughs> yow nag loolu dalu la. sa place bii yal na la fi yàlla saxal. yal na yàlla gën laa taxaw. lépp loo xam ni borom xam dana ko am ci teraanga ak fanu jëm yal na la yàlla may lu ko ëpp. lu kawee sa jot yal na la ko yàlla defal. maa ngi ñaanal Africa set mhm. yal na ko yàlla gën a yëkkati. fii bu nu fi ñëwee. Mhm. dañoo fay bor. ndax Alioune Ndiaye mii. liggéey nañ maag moom juróomi at juróomi at la ñu liggéey maag moom yaakaar naa koo liggéeyal juróomi at moom xamante ngeen juróomi at la nekk di ko liggéeyandoo man ak moom ca Italie ma ko émission bu nuy wax xam sa diine tous les jeudis depuis 2014 laa tàmbali ci moom ñooy nekk alxemes bu jot di gisee bokk liggéey bi ba yàlla dogal mu jóge itali ñëw fii mhm. jaadu na man bu ma nekkee ci réew mi mhm. nekk ci télévision mhm. ma ñëw seddal xolam ñëw ci teleem dana tax mu xam ni kii kat la séqoon fàttewu ko loolu dong laa ci jublu macha maa ngi ñaan mhm. fu mu yéene àgg yàlla na ko yàlla yëkkatee fu ko kawe allahumma insha allah oustaz nit du fàtte démb nit mhm. du fàtte démb mhm. internet site internet bu ma dékk micro laaj ma oustaz nangam nangam la ma lay njëkk wax mooy mankat dafa am télé bu ma jóge woon da ngeen a xëy xëy gis ma TFM avant may ñëw TFM am na fu ma jaar fa ma nekkoon mooy diaspora 24 kam ma fa yóbbu woon mooy Aline Ndiaye nekk naa Europe pour wax la ni aussage am na loo xam ne ku la ko defal fonk na xëy naa bis ñu wooma conférence mhm. beneen dëkk it Espagne te jamono bi bin may woo pour conférence la wu ma aw ma këyit mhm. xaw ma nu may def te ñi ma woo xaw ma lu ma leen di wax mhm. ma ni Aline man am na ñu ma seetaan ci sa télé bii bëgg ma ñëw conférence leen aw ma këyit alin ne ma loolu du problème bàyyil ma sacrifié wu jël samay këyit man jox la ko même bu ñu la jàppee amul problème. Mhm. risque boobu ci jamono bi ku la koy defal. loo xam ne buñ ma jàppee moom day ñàkk kayit man ñu tëj ma. Mhm. mu sacrifier boppam ni ma am voyagel ci samay kayit. nga dem mhm. loolu nag teraanga la joo xam ne lu ma marqué la te du ma ko fàtte mukk. maa ngi ñaan yàlla ko yàlla gën a yëkkati. amiin incha allah bee avion yii muy jaay. nga xam ni bi mbas mi ñëwee. am moodu muudu yu tage tembe ci réew mi mënatuñoo dem bari na ku delluwaat yàlla ak moom la kon bii yii muy jaay na ko sénégalais yi soutenir nanu ko jàppale nanu ko taxawu kuy wàlliyaan sa dëkk tëggul ñun africains yi nag li nu yàq mooy boo boo dee jaay màdd yow sénégalais bi mhm. pël fuuta bi di jaay màdd ca pël fuuta ba la ñuy jënd jee mhm. loolu nag du yoon Aline Ndiaye yi ngi jaay ay bii avion mhm. yoo xam ne vol direct la ba Milan teggil la coono te ay prix ñoo gën a baax prix yi tubaab yi di jaay parce que danañ xool ni moom sénégalais la. Mhm. kon na ñëpp ñëw ci moom mu jaay leen ay billets. Mhm. ku bëgg a voyager ñëwal fii ci Aline Ndiaye jël numéro téléphone am woo ko. Mhm. ndax li muy def teg na ko ci yoon te yàgg na ak moom. dëgg la ndax euro ba gën a metti te ay carte SIM. yu tudd Ringo. la génne woon di ko jaay ca Italie. te yaakaar naa loola comme fa fekk xamoon nga Pastef ba mu ca amoon. Pastef boobu nag moo ne ci moom ba léegi. sincère ci lim nekk. Mhm. gëm boppam. Mhm. am fulla am fayda. Mhm. bi avion yii ngeen di gis moom la Aline Ndiaye di jaay Milan Dakar. quatre cent quatre-vingts euros. nga dem foo bëgg a dem. loolu yaakaar naa jàpp ndal la. xéewal la. maa ngi woo sénégalais yépp ñu ñëw. ci Aline mu jaay leen bii mhm. kuy jëndati bii ci réew mi mhm. waratoo fee teggi Aline Ndiaye mii mhm. di jënd ci keneen yéen ñi nekk Italie it bëgg a màggal si moom nee na mi ngi waaj bis boo xam ne ña ne Europe bëgg a màggal si vol spécial pour ñoom pour ñay jóge Italie di màggal si xam nga mm-hmm. màggal gi jub si na yéen ñooñu nag dalal leen seen xel am ngeen lu leen indi mm-hmm. yàlla nañu ca yàlla yóbboog jàmm mais bu ngeen collaborer ak Alioune Ndiaye mii mm-hmm. dootoo leen am jaaxle kenn du leen nax kon nag lii na yaatu na ko ñëpp dégg man du ma waxantu du ma ne kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma yonent bi ndax nag oustaz bu yàlla rek taxee may wax namu ma dara maa ngi enjoy di dund di am xaalis di sol lu rafet aw ma benn problème kon du ma ni kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma yonent bi mm-hmm. mais daal kii numéro baa ngi noonu numéro baa ngi nii 77 788 00 98 ku mm-hmm. bëgg a dem itali mbaa foo bëgg a dem mm-hmm. ci voyager rek bu mucc ci ayib ñëwal fii ci Alioune Ndiaye dara loolu naqari doo ko ci am incha allah jëf macha allah ñu ngi lay bëggee bu baax a baax di am contentement bu baax ci dalal bi biñ la dalal comme ni nga ko waxee ndax euh, comme ni nga jaare sa histoire ak euh, ki nga xam ne moom mooy DG Aliou jaay moo ma jox sa numéro ne naa waxtaan yow pour ñu dalal la pour ñu waxtaanee lenn li nga xam ne moom moo fi nekk. dama mm-hmm. ku pertinent nga suñu ma la dalalee mën nañu am émission bu neex te ni ma ko séntee woon noonu la amee yàlla yàlla dogal na ko. ameen Oustaz ñu ngi lay sant bu baax macha allah ci jàppandal gi jërëjëf ndax sa jot bëriwul. jërëjëf Oustaz. waaye ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo àndoon ñun ñëpp ci émission bu tedd bii. di gërëm ñi nga xam ne ñoo jot a dugg ñëpp bëgg nañ leen bu baax a baax di gërëm suñu directeur général Aliou jaay di gërëm itam Youssou ak ñi nga xam ne ñoom la nekk ci wàllu technique bi yëpp incha allah ñu ngi leen di béggee di leen jox rendez-vous ajjuma bi di ñëw ak beneen gan incha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jubboo ci mbokk yi ak jub ci diine ji bi jaaxe nabi sallallahu alayhi wa sallam luñ nar a jàpp bañ fàtte yàlla yàlla na yàlla jàpp ba mu fàtte ñu di leen jox rendez-vous ajjuma bi di salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf